rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salaam وألموا معا والتحسنوا لوجه باق خما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني لو أنفع حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى عبد شكور فارقت جملة من المباح liman kafaani yasawin nubaaxi ashkuro waqaadali abdaala kama kafaani xarba waljidaala subhaanahu wa wal kariim wa xamiid wa kullu man lam yaxwani fa huwa kamiid tasliimu man lii laa yuwajihu darar على الذي بالكفاني الخر جزاء من جل عن المثال لي خاد ما غاب عن الأمثال ندرة ما قد صرفا لخيرنا إبليس وانشرفا عدمت باطلا بحق فساق ولإلهك سعيداق ملأت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قال فالحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي دم برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام منبي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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. alamin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin محمد بن عبد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلتي bokki lislaam bi bokki diine ji bokki dëkkandoo yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a sell te mooy nuyoo bu lislaam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu bu baax noo ngi leen di ziyaar. noo ngi leen di ndokkeel ginnaaw bu ndokkeelee sunu bopp di ndokkeel uh, waa lislaam bi yëpp di leen ñaanal ni ñuy ñaanale sunu bopp yàlla nangul nu sunu liggéey bii mun a santoon te mooy wooral ko weeram wu tedd bi weer wi ñëw ñu def ci suñ kemtulaay kàttan def ci li ñu man ba mu jeex ba weer wi dellu ci boroomam bisniki ni tey nag ñu war a daje tëj ko jël sunuy diplôme mu delluwaat ba déwén ak jàmm incha allah mu dellu siwaat waxoon naa fi ni moom jaamu yàlla la at mu ne danoon gane si waaye moom ak gane di déwén leer na naññ ak dikkam déwén leer na naññ leer na noonu nañu ni dana ñëwaat déwén waaye nun ñii nag noo xamul ñun ndax dana dikkaat déwén walla déet kenn ci ñun mënta garanti loolu xanaa rek kon ginnaaw mënunoo garanti loolu nu tàllalaat sunuy loxo borom bi subhaanahu wa taala mu nu fekke ko déwén ak jàmm mu fekkaat na fi déwén ak jàmm kenn kenn kenn bañ a manqué kenn baña a tëdd kenn bañ a am dara lu ko metti wala lu ko naqari ba déwén ak jàmm ba mu dellusi waat fi yàlla mayaat nu nu defaat ko nim na ko sant suñ kemtulay kàttan kon jaamu yàlla jeex na muy koor waaye nag jaamu yàlla moom ma ngay wéy di continuer nu bàyyi sunu xel ni lépp lu ñu tere woon ci weeru koor bi dañuy wéy dinu ko tere ci yeneen weer yi ci def yépp kon nii ñu góorgóorloo woon taxaw ci santaane sunu boroom moytu ay tereem ci weer wi lu ne def nañ ko ngir moytu bon loole nag nañ góorgóorlu ba continuer ko ndax sunu boroom kat ba muy wax koor ba mu waxee ba aaya bay jeex lam ca teg mooy ndax bu jeexee ngeen dolli ko ragal yàlla seen boroom kon yàlla nañ ci dollikoo ak ragal yàlla sunu boroom subhaanahu wa kon ci ndokkeel gi nag ñu jiital ci sunu kilifay diine yi nu di leen ñaanal bu baax yàlla gën leen a dooleel yàlla gën leen a jàppale yàlla gën leen a dëppale jàppale leen bu baax ci yoon wi nga xam ne ci lañu tegu ànd bi ñu ànd yor benn kàddu di defandoo di waxandoo di dindeendoo loolu yal na ko sunu borom continuer ci ñoom doole leen ci bu baax a baax a baax nu leen ci ñaanal bu baax tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullah ak rakam ju baax ji sëñ Babacar Sy Mansour ma dugalaale ci biir ñëpp nag ñépp xulafaa u yëpp ci këri diine yëpp yal na leen sunu boroom gën a taxawu bu baax a baax ba nii ñu jàppalee diine ji ba nga xam ni saytaane mi nga xam ni moom ab xajjale rek moo ko neex lépp loo xam ne doole lislaam la wala taarub lislaam bëggul mu am kon loole yal na leen ci sunu borom gën a dooleel ba ñu gën a mucc ci saytaane seen mbir gën a dëppoo seen lépp gën a ànd kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax ñoom itam yàlla defal leen tawfiq bu baax a baax kon weer wi jeex na bokk yi nu bàyyi xel nag loolu koy tëj te mooy muuram koor mi muuram koor mi nga xam ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni daf koo farataal ci ñun ci képp ku ko man nga def ko bala nga julli kon nag soññaat nañ ci ñëpp bu baax a baax nan ko def bala ñoo taxawal sunna si ku ko ci mën a génne nga génne ko soo ko deful nag ba nga xam ne nag julli nañ ba noppi moom day wax ni loo ci defati ab sarax nga joxe beneen bi ci desit ñu dolli leen a dénk barab bii nga xam ni fi ngeen fi la ñuy daje nun ñépp di fi jaamu sunu borom subhaanahu wa taala muy néegam bii gis ngeen néeg bi fii mu nekk nii wax dëgg yàlla ci état bi mu toll bii ñu nekk nii moom ba sottee yàgg na ci la ñuy julli waaye bu ngeen yërndoo ci ginnaaw it di ngeen gis ne beneen bi ci des itam nag macha allah tàmbali nañ ko incha allah ba xaw yëkkatiku na léegi pa dara desu ci te ludul ñu dale ko kuule bi rek daanaka moo ci des loola nag su ma ko waxee ab soññewaat la pour ñun ñëpp nag nañ taxawaat gën a farluwaat gën a jëlaat sunuy dërëm sunuy ñaari dërëm defaat ci néegub sunu borom bi lebal ko sunu borom mu dencal nu ko ba ñu dem ca moom mu fay nu ko kon nañu gën a fonkaat euh, cotisation yi nga xamante ni mooy mille francs yi nga xamante ni dañ ko sasoo nun ñëpp weer bu dee ñu di ko def loolu ñu ngi leen ci soññ bu ko kenn xeeb ndax am na njariñ bu baax a baax a baax liggéey bi fu mu toll mille francs yi daanaka moo ko fa yóbbu 1000 francs yi la ñuy dajale di yóbbu ca banque ba di denc ba bërki démboo njaay rek am nañ fa lu ëpp 1 million bañ soxlaa mille bërki dem dem nañ jëlaat ko deseete nañ fa presque lu ëpp 500000 te loolu yëpp dara desu ko lu defu ko lu 1000 francs yi rek waaw bokkut ak li nit ñi nag di joxe di indi. kon ñi nga xam ni ñoo ñoo nuy jox par ay ton itam ciment léeg-léeg ñu yónnee xaalis ñoo ñu itam ñu ngi leen di sant bu baax li leen gërëm di leen ñaanal seen lu ñu man ren yan nan ko gën a man déwén waaye man daal li may gën a insister mooy cotisation yi moom muy góor ñi muy jigéen ñi nañ ci gën a jaajuwaat bu baax a baax gën koo fonk bu baax a baax loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne woon naa naa ko tabbal balaa imaam a génn nu ngi leen di sant nag di leen gërëm bu baax a baax fii ak fu nekk ci jàkka yi jàkka yi fees na delli ci weeru koor wi naafile yi am na sarax yi ñëw na yu baax yi ñëw na jëf yu baax yi yëpp mat na kon yal na na ko sunu borom nangul bi jaahi sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waltuf bina wa xawwina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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم صنعك سبحانك اللهم لا أهدي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى بل هي متتابعة بتتابع الليل ونهار قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال تعالى أيضا وما بكم من نعمة فمن الله فإذا مسكم الضر فهي تذكرون سورة النحل ومن أحسن عزم النعم نعمة الأمن والأمان والأمن نعمة العظمى ومنة كبرى لا يدرك قيمته ولا يصدر أهميته إلا من تجرع قصة الحرمان منه واصطفى بنار فقره فوقع في الخوف والقلق والذعر والاضطراب والفوضى والتشريد والضياع فكم من غريب فقد موطنه وكم من شريد غاب عن أهله وعشيرته وكم من منكوب تائه لا يعرف له مأوى ولا يشعر بطمأنينة ولا ولا استقرار إن الأمن عباد الله مطلب في حياة الإنسان إذ هو بتبعه ينتر الأمن وما يبعده عن المخاطر والمخاوف ولأهميته وعزم مكانته دعا الخليل إبراهيم عليه السلام لمك فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقدم طلب الأمن على طلب الرزق لأن الأمن ضرورة ولا يتلفظ الناس برزق ما هو الخوف بل نجد في القرآن talaasuman wasiqan bayna al amni wa raxadi al aysi min jihatin wa bayna al xawfi wal juuci min jihatin uxra qaala taala munkiran ala quraysh maa tasiru bi ala adami ittibaai al huda awal numakin lahum haraman aminan tujbaa subula kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aksaruhum laa ya'lamuun wa qaala subhaanahu wa taala aydan fi bayaani minnatihi wa fadlihi alayhim allati at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf bokk noo ngi sant yàlla bu wér di ko bàkk di ko kañ tey tudd yonent bi aleyhi salaatu di ko seedeel ne jottali na matal na te di ko ñaanal teraanga ak jàmm ju sax waaye di ñaanal jullit ñëpp ngërëm na bokk xam nañ ni xéewali yàlla yi bari na bari goo xam ne kenn mënu koo lim kenn mënu ko takk ndax xéewal yi day sotti di toftaloo guddi ak bëccëg boo demee suut Ibrahima da fekk yàlla di wax ne jox naa leen lépp lu ngeen di laaj ci xéewal lépp lu ngeen aajowoo jox naa leen bu ngeen dee lim xéewal yàlla yi bu ngeen ko mën a waaye nit nag moom tooñkat la ku gore di la suñu borom waxaat ne amul benn xéewal lu ne ci yàlla rek la jóg waaye nag moom daal bu jafe-jafe ñëwee ñëpp yuux loolu nag lu ma ta xalaataan la bokk na ci li gën a màgg ci xéewal yii mooy xéewalu sécurité ak kóolute ndax kat sécurité nag xéewal na bu réeréy bu mag a mag goo xam ne ah képp koo xam ne ni ko ci ay jafe-jafe doo xam wënaru loolu dem leen diggante riise ci ak jafe-jafe yi am ci adduna si yow Palestine ak Israël ñooña moom ñenn ñu daw nañ bàyyi seen tabax ñenn ñu daw bàyyi seen xaalis ñenn ñu daw bàyyi seen matériel kon ñooñu xam nañ jafe-jafe yi ñàkk sécurité kon jullit ñi war nañoo delluwaat ci yàlla mbokk yi sécurité <coughs> lu ñu sàqali ci dundu doomu aadama doomu aadama mënta ñàkk sécurité doomu aadama mënut a ñàkk bañ a sori ay danger moo tax xalilu rahman ibrahima alayhi salaam ñaanal na waa Màkka yàlla yàlla na nga may dëkk bii sécurité te it nga dootu leen wërsëg muy sotti ko ci ñi nga xam dañoo gëm yàlla gëm ëllëg kon xool leen fii sunna Ibrahima jiital la sécurité teg wërsëg ku amul sécurité doo tal lekk doo naan doo dëkk doo dara tey bu ñu demee ci alxuraan dañ fay fekk taqaloo bu am diggante sécurité ak dund bu neex ak diggante xiif ak ragal kon sunu borom yi wax ci alxuraan waa xuree sa lay naan xanaa défaruma leen barab bu am sécurité mooy xaraman amin lépp lu ñuy jaay ci adduna si ci lu neex ñi di ko indi fii waaye lépp ci nit ñi nag xamuñu bëgguñoo xamit waxaat feneen yàlla mi nga xam ne moo leen di jox ngeen di lekk yàlla mi nga xam moo tax kenn dëggul la nangu li nga yor la rend la kon yàlla moom nañ ko bàyyi xel sallallahu alayhi wa sallam ñaan nag li wane si kii laan solo la sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne bu weer teeroo day wax ne allahumma ahillu alayna bil amn wal iman wa salaamati wal islam yàlla yàlla na nga teru weer ci sécurité ak ngëm yàlla ak jàmm ak jëppoog dëgg rabbuna wa rabbukallah kon loolu day wane ne sécurité moom na doomu aadama gën a soxla te nag ku may kenn sécurité kenn du la ko may ku mayul sécurité ku jàmmalul kenn kenn du la jàmmal kon individu yi nañ jàmmalante famille yi nañ jàmmalante nation yi nañ jàmmalante grande puissance yi nañ bàyyi li ñuy def damay nit ñi jàmm musiba yi ñuy topp bu ñoree duñ ci mucc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 المعين على شكر النعم أولا التأمل في نعم الله واستهدارها في كل لحظة وحين ثانيا أن ينظر كل واحد منا إلا من هو أسفل منه ثالثا أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسأله يوم القيامة ولا يسأله يوم أن ينعم bokk noonu santaat yàlla duñ ko sant doy duñ julli jot duñ ñaanalante nun diggante julli yi doy bokk na sawar yi dimbali nit coo mën a sant xéwal yi ndax jaamu yàlla léppam mooy sant xéwal yi rek cause yi dimbali nit ngir mu sant li ko yàlla defal bu njëkk bi mooy mu settandal xalaat xéwal yàlla yi teewlu ko ci wax mu ne ndax kat lu bari ci nit ñi dañuy xéwlu xéwal yi bare bare bare te lekk ak naan waruwaay dëkkuwaay ba noppi nag du ñu yëpp xéwal boobu dund nag bu ñu ko jàkkee te yàlla nee na yéen nit ñi uskuru ni'mata llaahi aleykum alimin xaalisin xëyru la yëpp ku leen wala fàttaliku leen xéwale yàlla yi di leen ko tudd di ko nafar ndax am na kenn kuy bind pour yàlla kuy wërsëgal leen ci asamaan suuf ñaareel bi mooy kenn ku ne kenn ku ne ci nun daa war a xool xëcc suufam bul xool ki la ëppale ndax ki la ëppale xamoo fu jaar ba ëppale la xamoo daa sàcc xamoo daa naxaate xamoo daa tirise kon nit ki ëppale la bu ko ci ñeex deel xool ki nga tane tabul xool ki nga tane yéen bi ali daan daan nee na unzuru ilaa man huwa asfalu minkum wa laa tanzuru ilaa min fawqikum fa huwa ajdaru an tasdaru ni'matallaahi aleykum nee xool leen ci ki ci seen suuf bu leen xool ci seen kaw loolu moo leen di moo tax ngeen jox yàlla gëddaan ngeen bañ a xeeb teew li mu leen defal ñetteel mooy doomu aadama xam ne sunu borom dana ko bëri te yomal xiyam dana ko laaj ci yooyu mu ko xéewal ci wàllu wér-gu-yaram wàllu lépp rek lépp rek xéewal yi di jeex oxygène beeg la ca ajoog lépp te nag alxuraan nee na kenn ko ne na xam ne cëri juróom-ñaar yooyu sunu borom benn bu jën ëllëg dañ koy laaj mu waxal boppam sunu borom waxaat ne su su àlloon yow it ani nax danañu leen laaj kenn ku ne xéwal am a foo ko mën a jëmee daan la laaj foo ko jëlee ak foo ko jëmee loolu lépp daañu ko audit audit yooyu nag bu ko sa audit yii xew fii audit yii moom ku mu am ndey ku mu amul mën na cee bokk te pare yeneen éloquence yi mën na cee bokk waaye audit yële moom cër yi organes yi ci bopp ñooy wax ak seen bopp kon loolu ko bàyyi xel allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi اللهم وفقنا الى ما تحب وترضاه من الاقوال والافعال اللهم ات نبوتنا تقواها وزكها انت خير انت خير من سكاها انت خير من سكاها انت وليها ومولاها bokki noonu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen mbalu ak di leen baal di ñaan suñu borom boo leen baal di fàttali ne tey jii mooy bis bi nga xam ne ci la ñuy jël suñu di borom di boromi àjjana kon teewaay bii teewaayu remise la di borom lañ ko tuddee di boromi àjjana kon kenn ku ne na nga fexe ba di borom bi nga am bu ci daal sikkaat ndax kat ku démagul ku ne sa di borom mën naa sikk mën nga caa def leneen kon nañ leen fexe ba respecté di borom yooyu lan ko may nooy ko bàyyi imaam wax na ko léegi li nu ko may bu ñu ko may noo ngi ndokkeel ñëpp imaam noo ngi lay ndokkeel di ndokkeel ñi sa gannaaw di ndokkeel mboolem ñi jàppale liggéey bi ak jumaa ji ak borom wërsëg yi nga xam ne ñi ngi ci def luñ man ndax julli bii lu taxawal ko ministre ak wat moomu dimbale lu bare bare bare ak ñeneen ak ñeneen mënuñu li ñëpp dañ ci tuddi ñeneen rek kon noo ngi soññ suñu bopp di soñ ñëpp ku fi jóge ku ne ñun soññuwaat ñu fexe ba kuule foofu lañ toog fi mu ne te it ñu ngi yónnee ay dokkeel ci monsieur le maire yi nga xam ne ñoo nekk ak ñun na fi ak oustaz Omar Dem moo ko fi teewal ñeneen ñi ci xam naa am na ñu leen teewal kon al oustaz boo demee ngeen monsieur le ngay ne ñoo euh, ngi koy sant te di ko ñaanal ci lim defagul te nekk di ko soññ ci liggéey bii def na ci waaye liggéey fekk yëpp sayit duñ wax ni lu ne danaa koy dimbali rek Serigne Touba dene xaar loolu la ma xaar loolu kenn dara kenn deful waaye def ko kon boo demee nee ko gis nañ la gis ay ndawam ñoo ngi koy ndokkeel ñoo ngi koy sant ñoo koy ñaan naka noonu monsieur le maire Modou Guèye moo itam gis nañ ay yëngu doom yàlla na yàlla jàppale xam ni seen yéene na waaye nag nañ fexe ba bu leen kenn jëmee ci leneen dul ñi leen fal ndax am yaakaar moo tax nit ñi fal kon nag buñ am yaakaar ndax am gor buñ ko dénkee dara day tax ba loolee mu sàmm ko ba ëllëg kanam yàlla buy laa yow kenn du ko yëg loolu nañ bàyyi xel bu baax a baax ñoo ngi sant monsieur le commissaire commissaire police bi nga xam ne jamono ju ñu ngi lay jàppale ci lu lay may jàmm lu lay may sécurité ak mboolem ñi nga xam ne ñooy tax ci wàllu boobu ak mboolem suñu gardien personnel yi nga xam ne dañ leen a jël nit ñi ñu jàppale ci loolu ndax wax nañ ko fii sécurité ku ko amul dootal ndax lu dul loolu kon yàlla na yàlla boole ndimbal yàlla na yàlla taxaw loolee ndokkeel ñëpp imaam waxal bu jël mu di na mboolem al umma islamiya ñëpp kon noonu ma jaar ak xanaa kon ñaan rek bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin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 allah kulli jërë ngeen jëf yi ñu ngi leen di nuy bu baax baax di leen ziar di ndokkale ñëpp di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan suñu borom may ñu teewe ko at yu bëree bari ni ngeen ko waxee rek day mel ni eh, ren suñu borom dañoo dimbali defal ñu tafeexu jullit ñëpp bokk ko eh, taxawalandoo ci benn bis day mel ni ak wuute daan na am waaye loolu yëpp ci diine la ndax yonent bi moo waxoon ne eh, mbooloo mi yëpp sama xeet yëpp laa teg ca moom ummati ala xata mbooloo maanaam jullit ñi duñu waxoon na ixtilaaful ulama yi rahma waxoon na ni euh, borom xam-xam yi wuute yi ni wuute ci diine mooy yërmande ji ne ci biir diine kon day mel ni ñëpp am dëgg li am solo daal mooy ñu ñaan yàlla suñu boroom nangul ñu jaamu yi nangul ñu suñuy koor loolu rek ci am solo. moom ab tawféex la tawféex gu gu mag a mag a maa la ndax man dama naan jullit yëpp dañoo war a booloo doon benn maanaam jëmmal comme la ñuy wax naan benn bant day yomb a damm mais boo boolee bant yu bëri pour nga damm ko. loolu coono la ndax boo soo xoolee jullit yi maanaam bépp benn bopp la ñu doon ndax benn kàddu la ñuy doxee kàddu yu borom bi ak sunna yi Seydina Muhammad sallallahu taala kon donc jamono toll na foo xamante nii képp kuy jullit ñun ñëpp dañoo war a booloo ñu tënku ci benn kàddu ñu tënku ci benn kàddu yeneen pays nag ñoom comme que am na ay différence horaire ñooñu mun nañoo comprendre sax maanaam ñorawee ñu benn fan wala heure mais ñun ñi nga xamante ni ñoo ne Sénégal wala ñun ñoo ne Afrique pour man war nañoo mën a tënku ci benn kàddu kàddu googu nag du dara lu dul sunna maanaam li fi yonante bi bàyyi nag la war topp ñu jëmmal ko bu ko defee de nga xamante ni képp ku ñu gis wala képp ñu dégg dina xam ne jullit yi ne kat mànkoo nañ ci benn leen nduyu mbokk jullit yi nga xam ne eh, ñooy mbokk jullit Sénégal yëpp ñu ngi ndokkeel ñëpp si xëyidul fitre bi nga xam ne moom la ñu def tey tabaarakallahu di sant yàlla di ndokkeel jullit yëpp tabaarakallahu question bi nga laaj question bu am solo la eh, tey la lislaam santaane mooy bennoo bennoo boobu tey daanaka gis nañ ko si réew mi daanaka wàññeeku na parce que boobu bu njëkk ba danga daan gis dañuy am ñii dañuy julli tey wala ñetti julli da daan am mais tey yàlla dogal na benn julli moo am te loolu tamit umma bi ñu ngi koy rafetlu di gën a waxtaanaat rek bu ko defee rek ñu mën a gën a doon benn rek incha allah. ko ni ko imam waxee rek ñëpp def ci jàngat maanaam dañoo nekk ci ci jamono joo xamante ni violence daa bëri violence dafa bëri insécurité tamit maanaam day gàllankoor lu bëri ci ci ci ci ni àdduna di doxee daal. te dañ naan sax jaamu yàlla ma bala nga xaa gën a mën a def maanaam nga ànd ak sécurité sa xel dal bu ko defee di nga xam bu baax ni nga jaama borom bi loolu nag ab soññe la ci ci képp kuy jullit képp kuy jullit maanaam soññ nañ la ci nga dox wala ngay wax wala ngay jëm ci loo xamante nii muy indi sécurité ndax lépp lu dul sécurité rek maanaam safaan la boo xamante nii lu ndax damay faral di dégg ñu naan lu lu jàmm lal moo gën lu jàmm lalu ba lépp loo xamante ni mbirum diine la. wala mbirum àdduna wala lépp loo xam da lay yóbbu ci ci borom bi boo ci amul sécurité lépp loo ci bëgg doo ko ci doo ko ci mën a amee daal ba na nekk na loo xamante ni kenn ku nekk suñu war na ci war na ci mën a bàyyi xel. wala daanaka tey ñu nit xutba tey bu doon def tamit daanaka si loolu la ñu waxtaane parce que tey kenn kuy waxal dëgg xam nga ne tiit nga tiit nga si njaboot tiit nga si li nga xam ne mooy xew fu mu toll nii si réew mi. ndax lan ay xale yu ndaw ñoom la ñuy rey waaye ay xale yu ndaw ñooy reyante seen biir kon nag loolu bu demee ba commencé di am nit ñi dañu war a tiit waaye loolu yëpp dafay delluwaat responsabilité parents yi parents yi ñoo war a dellu si waat seen responsabilité xam nga yàlla subhaana wa taala dafa am li nga xam ne waxoon nañu ko nee na kenn ku si nekk waajur bi nga xam ne yow la yàlla dénk na ngay jël sa responsabilité yar ña nga war a yar waaye dafa mel ni tey waajur yi kenn ku si nekk li ngay woo mooy wut alal mooy wut li nga leen di dundal waaye woo li nga xam ne mooy yar loolu nag ah kenn ku si nekk ñu ngi lay interpellé waat ñu jëlaat suñuy responsabilité parce que luy ëpp ëpp na te réew mi mënatul continuer di dem ni moo tax ñun nag lañu mën mooy lan ay rappeler maanaam wax nit ñi bu ko defee kenn ku si nekk xam li nga xam ne mooy sa wareef parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na kullukum raa'in kullukum masulun wa kullukum masulun an ra'iyatihi loolu moo tax nag kenn ku si nekk loolu lañ lay delloowaat di la ko joxaat incha allah ah, xam nga euh, yonent bi sallallahu moom mooy moom mooy solution te te te moom mooy jàmm itam cohabitation dafa am solo te islam day dox itam day góorgóorlu ci li nga xam ne euh, yiteem yitey islam yëpp mooy cohabitation ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk na ak ñoo xam ne du ñu ay jullit ci biir madinatul munawwar Euh, nekk na fa ak ñoom dund ak ñoom dundin wu rafet màkkat loolu am na fa bundu xasal nañ ko fa ba mu génn waaye ba mu ñëwee itam li mu def mooy dëkkaat ak ñoom nekkaat ak ñoom jéggal leen kon euh, li li nga xam ne moo am solo mooy bépp jullit wala bépp nit nit ku mënti doon gu ne ci àdduna bi rek yeeyow nga ñu sàmm say àq ak say yelleef àq yeeg yelleef yoo nag Euh, jàpp nañ ni ci gën a ni ci gën a ñoŋ ñoŋ wala li ci gën a jàppandi mooy ni ko islaam santaane ñu koy ku nekk def def sa morom ni sa bopp maanaam dañuy wax ne euh, lislaam euh, dafa am benn proverbe arabe buy wax ne xoriyatuka tabda'u xiina tantahi xoriyatul aaxar maanaam yow nit ki boo tàllalee sa loxo ba mu laal kanamu jàmbar rek xamal ne foofu la sa liberté yam kon looloo ci am solo buñ dee def noonu rek te tënku ci mbir yi euh, dara du ci du duñ gis dara loo xam ne lu déplorable lay doon xañ na loolu loolu loolu te jamono ji daa yëngatu ndax gis nañ ne dëkk bi jafe na lool wax nañ ne nangam yokk na nangam yokk na nangam te loolu yëpp bu nu waxee dañ naan jàmm ji ñàkk diggante Ukraine ak Russie moo ko waral kon ñu ngi ñaan jàmm euh, dellu si fa euh, mbir yi jàppandiwaat ba lépp deme ni mu demee woon.